salaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla jul ci bi sant sama ñaari waajur di nuyu waa parcelle yëpp di nuyu sama supporters yi fu ñëpp nekk maa leen di bëggee di leen ziar jox seen wàccuwaay di nuyu waa jàmbaar académique di nuyu coach yi fi nekk yu mel ne Père Loto Père Suko Balla Diouf grand Yaram Ibulaay grand Idi ñoom ñëpp ñu di bëgg wér di ziar waa jàmbaar yëpp di ziar lutteurs yi fi nekk yëpp di leen nuyu di nuyu président bi maam Père Ba di ko nuyu bu baax di nuyu Père Manga 2 di nuyu Mbathine sama manager di nuyu waa parcelle yëpp 26 encore une fois di nuyu sama mbokk gànjol gànjol yi waalo waalo yi ak seen mbokk séeréer si waaw waaw jërëjëf Babacar mm. euh, bésu le 24 juillet bis bu mag la ci wàllu làmb ndax li ci gën a am solo mooy Fallou Ndiaye daf ñoo woo ci bis bu mag wax naa ko démb bi ñu seet jee tonnerre Fallou Ndiaye le promoteur numéro un yàgg nañoo woo ci bis bu mag moo tax bis bii bis bu am solo la ci wàllu làmb bés bés la boo xam ni day yokk làmb waaye amul dara lu muy wàññi ci làmb ndax ku jël Mor Kankang boole kook Alioune si Signon jël tonnerre boole ko ki nga xamante ne mooy Dame Sène dem ñu seeti ki nga xamante ne moom mooy tonnerre ñu ne ko Dame Sène nee na day dajjiwaat beneen paquet mi ne xaw ma foo koy dajjee de waaye du biir Pikine deux cent pour cent bi ba tey waa waaw dama koy nuyu sama adversaire moom tonnerre di ko sama grand la tere danaa ko jox cër bi moom li mu naa ko jox mais tamit làmb la bu ñu xasaan am contrat mun naa ne ay morom lañ parce que amatul de grand suñ bëree pour jëlante ba pare bala 24 passé ma joxaat ko cëru grand frère mais pour l'instant nii mooy morom lañ du grand frère du lenn ay morom lañ ay naataangoo lañ dañu bëri. non mais c'est que ni grand contre petit la Babacar. parce que grand contre dafa xew. Pikine la tamit ak parcelle ba tey jeexagul xam nga waaw ku xam Tonnerre xam ne mbër mu mag la champion la moo la jiitu ci làmb ak ñi mu mujjee bëreel ak façon bi mu bëree dafa wàcc ñëw bëreeg yow laaj Pythagore la mujjee bëreel sama waaw ñu ne bu naan yet la saa muy xàccee day dal. Hmm. waaw maa la wax loolu. parcelle Pikine. waaw xay yet la saa muy xàccee day dal. fu ngeen lu tax bu ngeen xàccee yet bi rek dóor ko waa Pikine. parce que ni ñu liggéeyal. ñoom waa Pikine dañoo liggéeyal wala. non xaw ma nag buñ ñëwee famille lañ. Hmm. famille lañ ñu ñëw defandoo lépp mu naan ni li may passé gaay yi fii nii du ma sax passé sama waa gaale ndax su demee sama gaale li jëpp temps bi foofu dama koy nelaw dama koy récupéré man naan temps may nekk gaay yi fii du ma ko nekk sama waa gaale kon ñun famille lañ. ndax ñuy nekk ñu ëpp kon li may nekk sama waa gaale kon fii famille la mais Baye Balla wax bi mu wax dinaa si ñëwaat Tonnerre mbër bu mag la ñi say mag bëri na ak ñoom bëri na ak na ak Yékini mu ndaw bëri laay Pythagore ko performance am ci làmb loolu moo tax ko dañ laa jox secret bi wala waaw du secret parce que liggéey la rek damay ndaw di nekk samay grand liggéey bàyyiwuñu ma seeraawuñu ma ci dara ci lépp ñu may conseillé seen xalaat seen lépp kon tey ma nekk ndaw lu xam ne tamit parcelle la maa yaakaar am ci man yaakaar trop ñoom fu ma séentu am na pali bu ma nekk moo xam dafa war a génn pour bëri jëg samay morom te damaa jàpp pali bu ma nekkoon pali pour ma def loolu nag foo ma tracé tonnerre pour def def li ma war a def ci làmb est que xam nga ne tonnerre bokk na ci mbëri daak xeex ci arrêt ci làmb ji yàgg na fekk kaawu mbër est que yaa ngi sóor loolu waaw loolu dawal sama yaram man kuy dóor lay war tonnerre nee na nga laaj ko Papa Sow boo ko xamul. waaw mais Papa Sow ko daan. ah boo ko xamul nga xam nga mbëri mën nga ko daan. waaw te du balaa nga koo daj nga lu miti. waaw mais Papa Sow ko daan bu naa Moussa Dioum dem si yàlla di ko ñaanal suñu borom xaar ko àjjana bu te bu loolu yëpp ñu si tribune bi seetal si woote maanaam yow mën ngaa bañ a xam Tonnerre à cent pour cent mais say mag yi nga nekkal biir sa parcelle xam nañ ni mbër mi nga am champion la ci caacaa gi ci mën a bëre bi ak xeex bi non champion la moom wax dëgg yàlla ku waxal waxal rek Tonnerre champion la mbër kaamil la def na fi lu nekk mais tamit man dama di xale ndawlu sawar hmm. waaw Tonnerre yaa ko gën sawar yemuñu sax man ak moom. mais nee na nee na bi amul dara lu muy taxaw di la xaar amul dara lum lay dégloo amul affaire bu mag amul affaire bu xale nee na bu bu arbitre brip mooy ñëw def li muy def daan la dem yoonam nee na mooy diriger mooy daan loolu waaw man benn ñàkk fayda daa nekkul ci man man mbër mosuma diriger si làmb ma bëri naa douze combats arbitre mosul suulee mbër sama kaw fu arbitre suulee damay dem na ma xaar man damay ñëw. moom nee na la xaar de. ñàkk ma fayda gu may xaar ton bëri tonal di ko lay doon. non xaw ma day ñëw wala ñu mais man dama xaar. da ngay ñëw damay ñëw ci kaw dama dal ci kaw bu ar bi suulee damay toj ñen sama den ci kaw. Hmm. xalaatuma ko sax mais ci ay micro ngay waxee de Babacar. ci ay micro laay waxee léeg-léeg ñoom ni ñuy waxee ci micro duñ ko defee noonu de. waaw loolu nga léeg-léeg reporter yi gars yi sonn lool. waaw ah? man sama lamb. Ah, man sama lamb. reporter mosuma jëpp arbitre mosuma jëpp baat la ak tontu sama problème rek boo bëree li ma bëri ci combat bëri naa douze combat sama combat boo ko adressé motul 21 minutes. kon daal bésu ko 24 juillet boobu maanaam amateur yi dinañ gis combat bu gaaw te neex. bu taxawee. waaw lamb ah. dama koy jox seconde. waaye baax naa ko may naa ko may 25 secondes. 25. xam franc 30 la naa ko may bu ñëwul ma daan ko ci 25 secondes muy 50 secondes. mais yéen lan tax ngeen di jox waa Pikine ay secondes. parce que loolu la ñuy liggéey. loolu la ñuy liggéey. Eh, Babacar Tonnerre nee na moom lu mu mën a indi da koy daan. Tonnerre moom taxaw na ci lu wóor ah, moom li mu wax ma wul na boppam trop. loolu wax ma nee na boo xeexee da lay duma boo bëree mu daan la ah. nee na dafa am keneen ku mu soxla ah. waaw loolu noonu na na wax li nekk ci kanamam ba pare. maanaam bu wax loolu jëndi ma ba pare. ndax dama de xale damaa soxla damaa soxla te fi ma nekk nii sa place Tonnerre bi jël xale yi yàgg nañu am moytu dama koy sant bu baax ba mu nangoo bëreeg man tey bu ko neexul mën na bañ a bëreeg man. mais tamit li tax mu jël ma du ma ñëw di bëri naan ay sama grand la non non fu mu taxaw dama ko fa fekk def li ma war dama war dem sama yoon te dama ko war daan avec la manière pour man dem sama yoon dem sama yoon. mais daam nee na nee na combat bi combat boo xam ne bu koy ubbilaat bu koy relancer waat carrière am la. nee na combat bu am importance ci moom la yow tamit combat bi lan lay représenté yow surtout ngay bëri ku am expérience jiitu la titi ci làmb bëri say mag tamit. waaw làmb ji am combat bu am solo sama carrière man tamit ndax tamit mën naa ni samay morom laa lu bëreel ak sama ci maa ngi soog bër bëri koo xam ne mën nañ ñi moom ma jiitu ci làmb lu bëree bëree bëri gàtt gàtt ma gën a ma 10 ans. Tonnerre gàtt gàtt ma gën a ma 10 ans. bëreel bëree ma ak ñoom. waaw yàlla dogal loolu. loolu dama koy nangul mais tamit terew doxul dara sama diggante ak moom li ma war a def. Hmm. ci kàttanu yàlla. Hmm. na ma xaar man damay def lépp damay mobiliser stade ba mu fees. Hmm. damay tuus mu neex. damay bëre damay xeex dama xaar pare naa lépp. paquet ma. paquet bi ngay daaj paquet bi tonnerre wax ne daam seen. nee na doo daaj dafa neex na doo daaj def. loolu dafa neex daam te tonnerre nee na du fi amee. yow xam nga ne dama koy def. Ah, yow tamit xam nga dama koy def. ah di nga daaj. xam nga dama xam ngeen dama koy def man. ah, ah. waaw. sabaa ko ñëpp xam nañ koy def. ah paquet lan lay doon. loolu surprise la. paquet bi doon wax. mais mën na non après laa ñu wax tur bi. ah soo paree ba ci ngoon gi laa ñu wax tur bi. mais ma xam lu ma jaaxal diggante Pikine ba tey daa mel ni daay gi day gën di tàkk rek. boo fayee fii fee tàkkaat ñu fay fii fële jàppaat. lan la parce que tamit mooy tollu période boo xam ne. waaw ah. say adversaire dañuy nekk benn côté. adversaire boobu mais tamit comme la ma la koy rek ñu ne ñoom yat la saa muy xàccee day dal. yat bi nii. waaw saa muy xàccee day dal. mais daam da fa duggoon fan yee passé. ngeen ñëw di fa duggaat. waaw ki nga bokkal écurie moo fa duggoon di sa mag. nga bëgg fa duggaat est-ce que du amul dara lu muy représente si yow waroo def faux pas tamit. non amul dara lu muy représente ma du sas du dara parce que lamb la rek. lamb la rek. lamb kese la lamb la lamb la mënul wees mënul romb lamb. waaw dama koy ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm si borom carton ba bis ba ma nar ci moom ma def ko. li nga nar ci euh, tonnerre. waaw ma def ko loo nar ci tonnerre. waaw li ma du ma nekk wax lu may wax. du may jëfandikoo mu daanu la wala jàpp su kër bi wala yenn wala xattar bi. mbaa lan lamb ji ne mën na ci maa ngi waajal lu nekk. ndaamal nda ndaamal match la de. moo tax mu neex ma. Babacar kii nee ko mi ngi doog am combat wax ko. Baye Balla Mboum ne na yaa ngi door ah moom kay est-ce que xamu ko Baye Balla wala. ki muy bëreel moom. loolu dañuy napp nii rek. loolu Baye Balla wax. loolu. moom moo ne yaa ngi doog am combat. waaw ah, wax yow. mais man dama jàpp ne lamb la mënut a romb lamb. du ko dépassé. du ah. mooy loolu. parcelle ak lu mu mën demee incha allah ndam laa ndam nga indil waa lu mën demee incha allah ndam laa indil waa parcelle. côté mobilisation te ñoom laa te ñoom laa loolu laa seq ak ñoom. parcelle parcelle boo gisee sama gars yi ni ñu ñëwee nii indi sigo yëpp xam ne gars yi. gis nga poids lourd yi may bëreel gis nga usine ñaar poids lourd fi nekk ay plus de 130 kilos fi nekk mënu leen gën a diis ci te ñoom laay travail kon Tonnerre tey amul lu daw amul lenn lu mu daw sama yaram. non man moom ku ma waxoon di nga contact ak ñii moom du ma ko gëm Babacar. amul lenn lu daw sama yaram. amul lenn luy daw sama yaram ci moom. Oh. te bis baa incha allah ngeen xam ne xale ma woowaat sama nit yi may jàppale nga xam ne carrément. su ma jógee am ah, tamit dajee bokk. soo jógee gars yi ñu nekk sa ginnaaw. Ah, waaw Fall boulangerie. waaw Fall boulangerie boulangerie maam rawaan maam maam rawaan Roso. sey loolu damay jaawal Pape Fall. waaw maam Ngor sama grand sama lépp. père Manga père Mbartine. gars ba ngeen génnee lii père ba. waaw ci jàpp bu baax Mansour. waaw Papi Soge président. waaw maa ngi ciy bëgg bu baax. waaw Alain. boobu ren Dakar. ren waaw. Alain Ngom Bamba El Capo Tafa Cissé borom Ibrahima Diaw monsieur le maire responsable politique APR Fass. sëñ Mor Fall. Serigne Fall maa ngi ko wax saa Touba saa Samba Ndour As Gawane Wari Diakara Mansour Ba Ibou Gueye Kabou Gueye Papa Gueye Xeer sama patron Cheikh Cheikh Labat Fall borom Pikine maa ngi bëgg baax Moussa Mbow Cheikh Kouyaté Daouda Mbow Papa Habib Amsi Cheikh Ndaw Papa Baye Gueye Lame Sarr maa ngi koy woo Lame Sarr di ko woo Lame Sarr Lay Ndiaye borom camion yi sama mbowoon bi maa ngi koy woo bu baax Guri borom immeuble Kébé moo may entraîné Papa Gueye coach Prosper boxeur bi Petit Dia Zodia maire parcelle bi Jamil Sané El Hadj Kébé waaw maa ngi maram lum premier adjoint lum adjoint au maire maa ngi woo bu baax di woowaat Pape Matar sama grand frère di woo waa jàmbaar waa école bi maa ñëpp maa di woo di wuti sama grand yi di waxaat waa parcelle encore une fois nañ ma woo nañ di woo Moodu Modou Lo maa ngi woowaat bu baax ci Papa Sow Franc Gora gars yi di bëgg wér ndax ma kenn Grand Médine Cambérène Yoff Grand Yoff Arafat bàyyiwuñu kenn maa ngi woo ñëw jàpp si combat bi Derklé Fass Tali Karo yéen woo bu baax Fass waa Fass Tali wa waa Boune ñëw jàpp ci combat yi ndax xam nga rek ñi nga woo ci combat bi bari di woo waa Mbelo Ngij dañ ñëw jàpp ci combat bi ah Mbelo Ngij waa Mbelo baax a baax a baax waa Ñoojoor waa Falia waa Sio waa Basar waa Caala waa Caalaan Imam Abdourahmane Thior nga Basaar da nga woo Basaar. waa si Diop waa si Diop Casamance waa si maa leen di woo baax a baax baax. waa Falia tamit di leen waat bu baax bu baax. di woo mbokk gànjul gànjul fépp fu nekk waalo waalo yi. waa ndimb gaaya maa leen di woo bu baax waa Ndar gën Ndar sama mbokk gën maa leen di woo bu baax na ñoo jàpp ci combat bi waa Fass. Pal gànjul gànjul fépp fu nekk maa leen di bégg bu baax a baax a baax di woo waa Mbam waa Mbassis di leen woo bu baax a baax baax waa Nianing waa Fadiouth waa Koubalan maa leen di woo bu baax baax ba ci combat waa Kaolack fàttewuma leen Mbour waaw nuyu naa ñëpp di woo ñëpp nañ jàpp ci combat bi di gërëm sama gars yi nga xam ne ñoom laa àndal mel am di Moustapha Ndoof Tumaane Jogay waa Café gi waaw zo di jo zo mooy son ñu son samay combat lañ waaw ñoo xam ne su sama gisoo gis ma gis ma Omar wari nga woo baax a baax. ñi nga woo ñëpp ci bés bu xaj. Njoogu ñoom ñëpp maa ngi woo. sama président fan club Fat Bintou Sokho maa ngi woo. di woo na ñëw jënd bolak yi mooy loolu. père ba rek mën na laa def ci féminin père ba di ko waat encore une fois bëgguma parcelle xale des fi. père ba mais ba ma ngi wax bëgguma des parcelle. daam dafa woo dafa woo